ñoo ngi ñoo ngi leen di nuyu avant tout di leen présenté suñu mouvement bi ñu def fii ci ginnaaw raay ñun nag ay jigéen lañu nekk ci gox bi ñu ne woon dañuy jóg pour dimbale suñu bopp ñu commencé fii benn mouvement ñu ngi ko commencé ñoo ngi ci suñu ñaata at suñu quatrième année ah. waaw waaw 2017 lañ ko démarré woon ba 2020 léegi ñu doon def chaque dimanche dañuy natt 100 francs 100 francs def ci suñu kees ñu am tamit ay kaame yu ndaw yu indi parce que jigéen tamit soo nee dimbale jigéen ñun dañoo bari euh, soxla ci ay événement korite tabaski yooyu dañ ciy bari soxla léegi ñu ne woon pourquoi pas ñu def ñu defaale ci biir kees boo xam ne dañ ciy dugal lu ñu am ñu def ay carnet kenn ku ci nekk yaa xam nga am par soo nattee cent francs ba pare da ngay wàlbati ko jox dara ñu ko ci kees bi mais dañ koy ci sa carnet carnet yooyu mooy pour tabaski bi cent francs cent francs waaw Mm-hmm. そうかなっていうか沖縄杯のパーミルにそうと同じでですよねくらいのkita jadi pandip saya kenal deputizasi deputizasi paham saya kan kita jadi lawan dan bisa kiri Kalimantan dari jenis sunyi duri sunyi jeb sunyi soble joko lepa mana lepa mi necessita parce que am ñoo xamanteni xeyna sen loxo jotul sen ginnaw parce def noonu ba si yàgg dañu continuer di di cotiser di cotiser di cotiser ba à la à un moment donné ñu am tuuti xaalis ñu commencé di lebal paa ñuy liggéey mais teewul ñu ngi doon xalaat tamit social comme que c'est un groupement et développer notre localité c'est ça en même temps l'intégration de toutes les femmes de Guinaw Rail actuellement nous sommes 122 euh, membres bëgg nañ ba mu dem 1000 so bu ñu sañoon jigéen yi nekk ci Guinaw Rail loolu

initiative de droit lan la parce que ñun groupement bi lépp boo xoolee ñun lépp lu ñuy def rek mooy social defuñu leen pour lu dul dimbali rek suñu askan dimbali suñu localité les femmes parce que dañoo gis ne am ñoo dem màggal parce que dañoo liggéey waale ci màggal bi jënd jaay fa ak ñoom te dañ ko bëgg jëndaale marchandise moo tax ñuy def levée de fonds parce que ñun à chaque fois le 5 dañ daan fay mun nit ñi xewaat baan parce que à chaque fois dañu doon def a prêt de 50 mille à chaque membre parce recevoir benn aide mosuñoo recevoir benn aide à part suñuy journée d'intégration yi def pour inviter les hommes politiques de la localité léegi màggal Tuubaa na xam nañ ni temps bi dafa métti ak na le brise léegi ñu ne nañ def benn levée de fonds trois somme bi lu mu mënta toll ñu xool les nécessités ñi nga xamante ne dañoo faa soxla ñu jox leen am ñoo xam ne dañoo bëgg place pour màggal ñu jox leen parce que tabaski dem defoon nañ ko defoon nañ levée de fonds jënd ay xar ñu amul xar jënd xar ñu amul soble jënd soble ñu amul pompiteer jënd pompiteer ñu bëgg fay seen yére doom jënd fay seen yére doom 622 personnes lañ ko xaar waaw incha allah loolu la ñu bëgg 122 personnes yooyu bëgg nañ daal jox la le minimum bëgguñoo prononcer exactement sa chef bi mais bëgg nañ laa jox loo xamante ne daal liñ ci mën sa soxla boo ba nga xamante ne daal dina la xaw a am lu la dimbalee ci benn côté waaw incha allah waaw aide yooyu day am revenu parce que ñun ñëpp suñu xaalis la parce que ñun on a travaillé avec notre capacité de financement loolu la ñuy wax euh, capacité de asaka tey lebuñu ñu banque pour financer mais xaalis boobu noonu dina am tuuti mais dañ la koy lebal sur deux nga liggéey moo liggéey nga verser ni joxaat la parce tamit nit ki boo koy jàppale tamit doo ko may mu dem toog tey surtout ñoo nos femmes dañoo bëgg boo ko waxee jii dama laa may fond bi am na nu muy demee bu xalaatul fay dina ko dugal boo xamante ni am na nu muy demee da ko mais di moment ko da naan ko bu la joxee boo liggéeyee boo indee ma ñëw yokkalaat la leneen boo gën goo góorgóorlu pour fay pour liggéey fay pour nga yokkalaat mais boo ko mayee tamit bu boobaa groupement bi day taxaw mais il faut nga ne ko carrément a dois payer dans deux mois jox ko délai boo xamante ne wax dëgg am na yërmande nga jox ko ci dans deux mois ñëwee fayaat nga xool noo ko yokkalee nga yokkal ko. non ñun non dañu waxtaane 10 pour cent que tey jii membre bi nga xamante ni dafa dem ba mënatul wala soit mu toxu suñu di pour cent dañuy calculer suñu xaar moom xaalisam lu mu wati cotisé ak les 10 pour cent du bénéfice total ñu jox ko parce que noonu la ñuy liggéeyee ñu kal si benn taux boo xamante ni tey jii même bu fekkee membre bi génn na en retraite li mu ko doon cotisé intérêt yooyu moom mais képp koo te da ñu doon gunge batay xeyna da nga toog wala ndogal dal la mënatoo ñëw boo bëggee génn say dix pour cent la koy jox ak bu nekk suñu moom waaw ak wax kenn mu arrêté mais nit ki parce que tey ku tox yàgg war a di ñëw fii par dimanche di nag si day xaw a di seew soo xalaatee paas bi ak temps bi ngay def ci yoon bi pour egg day metti mais ci biir nga ci kaw nga bëgg a bàyyi mais soo bëggulee bàyyi soo ñëwee waxtaan ak ñun nañu man kat toxu naa sori naa mais bëggumaa bàyyi damaa bëgg a continuer bi parce que mun tamit ànd rek la ñu bëgg bëgguñoo tasaaroo dañ lay bàyyi ci biir mais ni muy demoon mooy sanat léegi ñëpp am orange money Wave am na leneen am na soo orange money sanat dañ la koy dugalal suñuy joxee financement tamit kon man présidente bu soo ñëwee wax ak man mën naa la tayal sa xaalis pour lépp pour bañ a ko daal parce que ñun dañoo tàmm ñun ginnaaw raay fii ñun ñëpp a ànd kii xam na ci dara ñoo nekk ci koñ bi mais suñu lépp benn la amul lu ñuy séddale amul xaaj ak seen lu ñuy def dañ koy defandoo dañuy xàcceendoo doorandoo moo tax suñu yëf day day xaw a kii daal day neexali jënt léegi nag soo bëggulee génn dañ lay bàyyi ci biir mais ñun ñoo lay tayal sa nat su fekkee xool nga ba xam ne mënatoo sa temps mayu la ko parce que jaboot bu ne jaboot la bugg a bàyyi say doom bu lijjante yeneen yi wala leneen dab la nga bugg cee teg beneen beneen kii beneen sars euh, day xaw a metti soo ne mënatoo dem dañuy xool calculer fa nga commencé woon yow li fi ñu woon loo fi mën a duggal dañ la koy calculer ba mu mat ñu jox la ko soo buggee continuer tamit dañ lay bay nga nekk ci biir noonu ñun ñoo ñun ñoo dema ñoo bëgg a noonu waaw parce que ñun ñun ñëpp ay mbokk lañu te tey may liggéey ak sama mbokk kii may liggéey ak mu dem ba am fii cinquante mille war a dem te ma xool ne kii lii moo ko tax a génn du du du kii am du sababu daal pour génnee boppam dafa am lu ko fi jëlee jaaduwul ma tey xaalisam man bëgguma tey xaalisam ci sama kees xaasu jàmbur bëgguma mu soqale kees bi dama bëgg liy soqale sama keesu groupement ñun ñoo koy liggéey ñun ñu ci nekk mais kenn ku génn sa xaar da ngay génn ak ñoom ku toog ñu bàyyi fa sa xaar ñu continuer di liggéey ni ñuy liggéeyee mooy bor bi par deux mois la pour mu oyo parce que tey soo bëggee lebal nit nga ne da koy jàppale nga lebal ko fukki junni ne ko fay ma ko ci un mois yaa ngi koy sonal ah, comme ñu toogee ba la cinq su dee cinquante mille la dañ ci teg cinq mille francs mooy intérêt bi su ñëwee day indi vingt sept mille cinq cent beneen mois bi mu indi vingt sept mille cinq cent kon tey fii comme ni ñu ko nar a kii ni ñu ko a jox le trois suñu fayee le cinq rek le six ba dañuy taxawaat yoo leen financé waat leen seen xaar yi continuer dem liggéey waat waaw waaw le trois waaw le dañu dañ fi na waaw ñun tey ñi nga ni ñoom dañuy retard. Mmh. non ñun comme ni ñu koy defee budget de man maay comptable ci budget de trésorerie laa koy def à ma yoon 5 heures du matin boo ma euh, man la ñu parce que damay def trésorerie initiale chaque fois ak trésorerie finale chaque fois bu ñu nattee damay def sama trésorerie finale def ko si papier def ko sama ordinateur de logiciel chaque fois nit bu amee rentré dans genre rek da ngay xam carrément somme moo ci yokk wala tey jii le deux la wax ni la ñuy leble mais dafay am amende bi nga xamante ne des retardataires par exemple dañ naan la bu fanaane dañ ciy teg 500 loolu def ñu ko ku soxor imaginez 500 francs c'est c'est minimum mais rek juste pour encourager les femmes à travailler parce que tamit on est au Sénégal te tamit chaque jour dafa am ñoo

dans la nuit yëpp loolu laa koy def après le lendemain ñu xool membre yi nga xamante ni joxe nag parce que su journée boobu si ngay xam les membres yi nga xamante ni ñoom ñoo joxe fay nañ ba matal lépp nga comptabiliser leen ñi nga xamante ni dese nañ un tout petit nga comptabiliser leen te avec ce que tu as reçu tu pourras financer nga ñuy wax euh, non solvabilité ñoom nga def leen benn amende 500 francs やなこれ。 taxaw na ñu def parce que crédit alimentaire boobu looloo ko taxoon a jóg dañ doon jënd man maa ko doon jënd personnellement dañ leen jënd ay keesu jëli yu bari ay saaku ceeb pour jox ko nit ñi tamit euh, on on dañuy waxante dëgg parce que xaalis dafa dafa euh, boo jógee 50 mille nga ko say membre bëgg ko lebalaat ravitaillement boo xamante ni euh, day coûté à 50 mille francs a possible loolu tax faute de moyen moo tax ñu arrêté crédit alimentaire bi mais danañ ci dox te incha allah bu ñu ku ñu jàppale dinañ ko continuer parce que na ñi amoon na trop njariñ amoon na trop njariñ surtout crédit alimentaire parce que nit ñi soxla nañ dund ceeb ak dund nit ñi dañ ko soxla te amaloon nañ njariñ en plus suñu aide sociale bi ñu doon def chaque fin de mois chaque kii certes dañ doon dimbali di dimbali finalement maanaam li ñu war a dimbali dañuy dépassé parce que dañuy joxe fi benen ka ñëwaat ñu joxe di joxe di joxe ba finalement dañuy dépassé motax tax ñuy ñaan ndimbal képp ku ñu mëna dimbali surtout suñu keesu social bi. Ah, li ñuy xaar si ñoom na parce que na autorité yu fi jaar. mais est ce que yéen en sol nañ suñu daal dem parce que ñun avant avant bi parce que mars bi sax bëggoon nañu créer journée mondiale de la femme defoon nañ suñu lancement yëpp ba am suñu parrain ak suñu marraine et tout ça parce que journée d'intégration dañ créé woon nañ ko avant on a appelé les politiques de la localité ak ñoo xam ne sax dëkkuñu fi ñëpp ñëwoon nañ bon ils ont fait des promesses def nañ ay promesses mais ñu ngi xaar ñu ngi xaar def nañ ay promesses ñu ngi xaar Certains ont aussi en 2020, on avait prévu le 8 mars qui passé pour une journée d'intégration de la femme, des, des femmes de Guinée Nous, si programme, c'était un CCDL d'abord, de 8h à 11h. En plus, on avait prévu un, une caravane sanitaire pour ramener les gagnants et les si kër yi en même temps sensibiliser nit ñi sur le paludisme parce que on a constaté tamit l'insalubrité à Guinaw Rail noonu dafa jéggi dayo moo tax suñu programme bi corona bee tax ñu ñu teg ko suuf mais tey jii boo ñëwoon sama kër mën naa la wan les t-shirts et tout ça on avait tout prévu tout prévu même les logos et tout ça c'était lu bis bi ñëw ñu def suñu caravane sanitaire set setal suñu localité comme set may def suñu caravane sanitaire may suñu musulmé sensibiliser la population de Guinaw parce que nit ñi on a boo ñuy mais tamit il faut tamit nit ñi di ko takk parce que comme sama genre bi dangay ngay jënd musu gerte ko naan damaa tayal a tàkk fallait que na dugg ci kër gi sensibiliser nit ñi ñu tax musu gerte moo tax ñu objectif bi si euh, karaoke journée d'intégration bi deuxième point moo naan mu nekkoon euh, ngoon bi boobu la ñu woowoon les autorités de la localité mais malheureusement ce programme bi mu am ndax corona bi mayoon nañu autorisation sax mais ñun ñoo pré prévoir woon arrêté waaw Ndiame na ko yëg na mouvement parce que comme nu la ko la waxee deuxième femme sax mu ngi ci biir mu ngi ci waaw Ndiame yëg na ko mouvement bi Ndiame yëg na ko parce que suñu kii ci biir mouvement bi soxnaa mu ngi ci biir kon yëg na ko te moom tamit wax dëgg fa yàlla xëy na comme nu mu comme ni la ko secrétaire bi waxee bu ñu defee suñu jamono boobu autorités yi fi nekk yëpp nag ñoo woon ñoom ñëpp. parce que ñoom tamit damay taxaw foofu tuuti ma sant leen bu baax ñoom autorité yi nag ci ginnaaw a noor du ma tudd turu kenn nag mais ñoom ñëpp laay sant parce que am waa kenn xaar ma yàlla tey ku ma soxla ku ma ci soxla dinaa sol sama daal te su ma la foogee di nga ma ubbi su ma jëlee sama téléphone woo la di ma wuyu bu démb ci guddi moo ci mujj waaw waaw loolu moo waraloon programme bi mu la wax daal programme bi ñu doon kii. waaw man tamit foofu kiiwu leen fi parce que mën na am tamit seen xel a ngi ci parce que at mi ren jii dafa xaw a doy waar mais gëm naa ne ñoom ñoom ñëpp laay waxal waxuma kenn bàyyi kenn ñoom laay waxal ñoom ñëpp seen xel nekk na ci jàppale ni parce que ñoom gis nañ lu ñuy def te neex la ne ñoom ñi fi nekk ñëpp muy góor muy jigéen am na ñu ne ñoo ngi dox ci mouvement bi ñu ngi koy doxal te mu ngi dox parce que mbir soo koy def su avancé wul doo ci sori buñ ko defee commencé ko am na ci ku ma seeti ñoo ko yóbbulee carte su cee wax ak moom mu ne ma ah asu yow li ngay def dëgg la parce que yow bi nga fiy ñëw daaw jeeg ñii nga fi àndaloon te ñoom nga fi àndalaat ren su fekkoonte ne caaxaan la kon tas la mais dinaa ci def lu ñu mën ñoom ñëpp lu lan la ci def lu ñu mën mais li waral mbir mi sooxee xëy na bés boobu naroon naa rek bés bu gën a ubbi affaire bi parce que ñoom ñëpp naroon na ñëw te ku ci ñëwul di nga def dara mais corona bi dañoo dem ba ci même le 15 lañ fa na a def dem ba affaire bi def 3 jours ci la corona bi gën a avancé affaire bi gën a yokku man maa woo monsieur le na ko ah man de sama programme bi dama koy bàyyi. ci biir loolu mu ne ma mu sant ma sax nag mu ne ma kontaan naa ci yow parce que yow soo doon compté sa programme gis naa li ngeen ma ñëw na la arrêté programme bi da doon xaw a diis ci man te su ma soo ko defoon du ma mën a bañ a ñëw te su ma toogee sama yeneen autorité yi may gis dinañ xalaat ne damaa ànd ak yéen ti nii tey dañoo taxawal mbirum euh, kii mobilisation kii léegi mu mu sant ma foofu après ñu arrêté tamit am na koo xamante ne ni dama ko gis muy dox ci affaire sociale muy professeur Daouda Ndiaye damaa dem ba ci moom ma sama secrétaire ñu ànd ñu waxtaan ak moom wax ñu wax ju sedd sama xol wax jooju tax na ba léegi sax maa ngi koy topp bàyyee dina wootee réunion dañuy dem lu muy def te ñu yëg ko su fekkee dem bi jàppande na ci ñun dañuy jog dem jàpp ki def ci lu ñu mën parce que daf maa wax mag toog di déglu di xool li ma waxoon moom laa gis moom laa gis moom lay def te tamit noonu laa koy déggee dama damaa bëgg nit koo xamante ne nii day jàppale waate day dimbale waate man aw ma dara mais damaa bëgg kuy def affaire sociale parce que sociale moo yor réew mi tey ñun ñu nekkee nii ginnaaw raay kii duma bàyyi ma wax lu amul tey képp ku fi am ñaar fukk wala nga am saaku ceeb sa morom amul dañ koy bokk kon su ma gisee kuy def sociale dama ciy ànd ak yow te loolu moo ma poussé sax may def lii may def du nag lu ma mën ndax lu ma lépp lu ma mënta def rek damay tëj sama kër mais dama bëgg ndox ci social ba ñëpp xam ne maa ngi ciy dox te su ma koy def dama koy commencé sama koy ma bëggoon nga may ma ma yeggale si biir loolu may def ma am bëggoon naa am sax fii comme saaru famikaar bu ndaw suñ ko fi defee nga xam ne affaire bi dootul yem ci parce que bëgguma mu yem ci groupement bi dama bëgg mu yem waa ginnaaw raay noonu comme su ma defee sama kii famikaar bu ndaw saaru banque bu ndaw tek sama xaalis keneen ku bokkul ci groupement bi tay liggé so ñëw ñu jox la nga dem liggé après nga ñëw rembourser man lool mo nek limay mebet da ci sama xol lool la bëgg damay ñaan ñepp tamit képp ku ñu mëna ñaanal nga ñaanal ñu pour lool ñi mebet suñu borom mon ko ci kaw mottali ba ci

waa jafe-jafe yi bëri na bëriwut mais lu ñuy wax rek à chaque nit boo jiitee da ngay muñ te nit ki boo ko tamewul gënoo ko da ngay muñ tolérance parce que tamit ñëpp yemuñu jikko yow kër gi xar yi nga xar yi ngay jiit yor sax da gis bii day mbëkk moom jafe-jafe yi li ci ëpp moo naam retard de paiement bi la retard de paiement surtout moom moo nekk suñu jafe si jafe à part ça wax dëgg yàlla amuñu benn jafe-jafe te ku si retardé tamit bu ñu la soññee soññaan la nga génn sa xaalis daal di jafe ñu wax dëgg yàlla ça fait quatre ans ñu ngi ànd mosuñu fi am benn litige mosuñu fi am benn litige mosuñu fi am benn coow wala dara mosuñu fee dégg ñun leen lañu xam ginnaawaay noonu ànd kafre foofu parce que ñi ñu yoreel sax tee dinañ waxtaan ak ñoom di leen seet di xam tamit lan moo leen tee parce que nit tamit des fois day bëgg mais yàlla day dogal du man mais te ñun wax dëgg yàlla sama yaay ji moom moom wax dëgg yàlla yaay jaboot la moom ñëpp lay leer man sax li koy xale jàpp ma ma mer wala déedéet bu jiite da ngay ñëw daal di mujj mais à part ça je suis waaw jigéenu Guinaw Rail ñu ñu def ñu ñu góorgóorlu comme seen bopp parce que nit fu mu nekk bu bëggee arrivé fu mu bëgg arrivé rek day gëm boppam Guinaw Rail Guinaw jigéenu Guinaw jom kon ku leen rek ñu dem te du moment la jigéen est la base de la société yow boo soxalee ko rek kër gi day naat parce que jigéen moo gën a mën a gérer gestion gestion de la maison jigéen la tey góor bu amoon cinquante mille bu ko joxee jigéen ni ko pour un jigéen bi dina ko gérer pendant boo moytul deux mois kon jigéenu ginnaaw raay nañ gën a góorgóorlu fonk seen liggéey gëm seen bopp xam ne un jour viendra dinañu dégg fu ñu war a trois bi lépp yembu na yembul des na parce que le deux bi la ñuy encaissé xaalis bi mais ñoo ngi leen di xaar te fu mu nekk daal gëm naa ne yemb daal la gën a jege parce que fi mu toll nii nit ñaa ngi fay fekk fii xaaruñu le trois wax dëgg fa yàlla ñu ngi ñëw fi di di ma jox xaalis pour seen paiement te ku ñëw fee si avant fin mois xam nga ne kon ñi ci des prévoir nañ ko am ñoo xam ne tamit joxe nañ seen xaaj màcc la ñu dese dañ koy mottali rek après ñu jublu ci le trois bi man daal li ma lay wax mooy man sama waa groupement dama leen di sant li ma leen di sante mooy ànd nañu ànd bu rafet te wóolu nañ ma kóolute goo xam ne mënu ma la koo wax yow moom parce que dafa am ay groupement yoo xam ne fii ci ginnaaw si dañuy faral di def da ngay faral di gis dañu naan kees ñetti caabi moo fa am mais sama groupement ba nu ma duggee sama ñeenti at man maay kees maay ñetti caabi amul kenn koo xam ne day lay gudd ñu ne lii la ñu am wala am nga dem di toog pour jox leen ne lii la ñu am ci suñu kees mais soñuñu ma benn yoon soññu ma benn yoon ci lu ñu am wooloo dikkuwuñ ma wonuñu ma leen loo xamante ne nii day tax ma découragé surtout dañ may encouragé parce que ku la jox xaalisam di tëdd di nelaw xalaatul ne xaar bi dañ ko waroon a tëj ci kees xam nga xaar boo tëj ci kees keneen yóbbu caabi keneen yóbbu caabi moo gën a wóor mais xaar bi de man man lañ koy bàyyee ne ma teyeel man maay xool fa ma wóolu man tamit ma dem yóbbu ko fa parce que man tamit du ma teyee xaalis parce que jamono ji wóorul niñ ma koy joxee noonu laa koy jëleewaat ba ci suñu xaalisu natt tabaski dañu doon def suñuy nattee tabaski ñu jël ci 5 millions booleeg suñu xaasu keesu groupement lebal ko nit ñi mais ren ji suñu borom def ñoo dimbale ba buñ ci eggee soxlaatuñu xaasu tabaski benn yoon suñu xaasu kees moom la ñuy jël di ko lebal nit ñi suñu xaasu nattu tabaski dañ ko bloqué PAMECAS lañ ko teg li tax ma ne la damaa war a am saaru PAMECAS parce que loolu am na yoon dama koy yóbbu dama koy bloqué soog koo génne bokkul nag ak million yi yor pour di ci liggéey waa li may wootee ah jigéenu ginaaraay di leen gën a soññ rek ci li nekk parce que ginnaawraay ji xale yu sax koo ci gis mu ngi wut mu def ku ci jàngiwul école wala nga pare jàngi école yaa ngi wut loo léegi ñoo ngi woo ñëpp autorité yëpp nag laay woo autorité yëpp ñin ñi fi dëkk ñi fi yeewoo ak ñi fi dëkk te yeewootuñ fi ñoom ñëpp laay woo ñu ñëw jàppale ñu ñu ñëw jàppale ñu surtout ni ñu mën a egg fu ñu bugg a egg bëgg nañu daal ñu ñuy dégg fu soree sori di ñu gis fu sore loolu laay ñaan yàlla te tamay ñaan yàlla bokk waa ginnaaw raay yëpp ak ñi ma ko bokkal kenn bañ a manqué ñu koy bokk muy neex ñuy am jàmm ci kàttanu yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla defal jàmm ak barke weeru màggal bi barke suñu Fallou sama seen waaw kay jërëjëf la localité à toutes autorités de, la ville de Pikine ñu ngi woo monsieur le maire de la ville de Pikine ñu ngi woo ñu ngi woo ñu ngi le maire Pikine Est Isaac Diop ñu ngi woo professeur ñu ngi woo monsieur le maire Pape ñu ngi woo lépp ñu ngi woo monsieur Waly Ndiaye ñu ngi koy ñaan tamit moom wax dëgg yàlla ñëwoon na teewoon na suñu événement ñu ngi woo honorable député Mame Diarra moom tamit tutelle les dames de fer de ginnaaw raay ndax la boobu képp ki autorité rek wala yàlla may la rek ñun ñu lay lancer appel parce que tamit ñun bëgg nañ affaire yi def incha allah. monsieur Aliou Sow. ak Aliou Sow aussi. Aliou Sow monsieur yi baax na après ma tax dana ñëw yaatal dana ñëw jël li nga xamante ni daal dafa fexe taxaw daal fexe ba carrément